Qatar moom génn nañ ko ci xew yi maanaam éliminé nañu ko ndax Sénégal moo ko dóor a ñetti bal ci benn yéen kaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa entraîneur bu Sénégal nee na match bi war a dox diggante Sénégal ak Équateur bu ko Sénégal bëggee gagné il faut concentration boo xam ne bu mat sëkk lay doona waaye ginnaaw concentration bi il faut détermination boo xam ne bu mucc ayib lay doona ngir Sénégal mën a gagné Équateur yéen kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Youssouf Sabaly daat nay wax ne match bi war a dox Sénégal ak Équateur maanaam il faut que ñu garder confiance bi il faut ñu nga xam ne ñuy waa Équateur daal leen di football lu rëy daal leen di mën a gagné yéen a kaay gi de Les Échos moom nee na Edouard Mendy góolub bi démb def na match bu rëy Boulaye Dia démb moo nekk homme du match Eliman Ndiaye deuxième mi-temps la dugg daal di góondi ci terrain bi furuj faraj ñeent joueur daal di Bamba Dieng Bamba Dieng dugal yéen a kaay gi de L'As nee na talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la yéen a gi de Libération nee na Sénégal ma ngi waajal final digganteem ak Équateur a xëy fekk fa waxi Kalidou Koulibaly nee na Sénégal wër te gàccal aw askanam dañoo war nag jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñuy wax Équateur daat leen di gagné yéen kay gi di bés bi Cheikhou Kouyaté moom nag daat nay wax ne match bi war a dox diggante Sénégal ak Équateur loolee soriye wut ak guerre Krépin Diatta nee liggéey bi leen Aliou Cissé santoon def nañu ko ba mu mat sëkk yéen kay gi di Les Échos bàyyi mbir moomee wax ci trafic passeport diplomatique yi ngeen doon dégg diggante palais présidentiel ak ministère bi ñu dénk mbirum affaires étrangères am na ñaari gendarme yoo xam ne nañu leen si yi atte nañu leen tëj nañ leen lu toll ci benn weeru kaso gendarme yi nag kenn ki Mamadou Lamine Ba la tudd kenn ki Assane John la tudd waaye tamit seen i complice di Limamou Seck ak Badara Samb ñoom tam tëj nañ leen kenn ku nekk benn weeru kaso yéen kaay gi di 24 heures xëy duñu xibaar nañu Cheikh Omar Anne ministre bi nga xam ne moom lañ dénk njàng mu digg doomu mi keroog bi mu demee ci assemblée nationale dafa wax ne Abbas Fall député Pastef moom nag dafa créé ab école waaye nag ko audité gis nañ ne daal épinglé ko ci yorin woo xam ne yorin baaxul la loole nag merloo na Abbas lool ndax député Pastef bi dafa jàpp ne Omar Anne li wax du dëgg tax na moom Abbas Fall bind na lettre jébal na ko président assemblée nationale nee ko Cheikh Omar Anne na jéggalu assemblée nationale gi tuumaale lu dëgg waaye tamit na andi preuve yi lu may loolee dinaa ko daal porte plainte yéen i kayi gi moom nee Abbas Fall député Pastef coalition Yewwi Askan Wi porte na plainte Cheikh Omar Anne ndax moom Abbas Fall dafa jàpp ne Sall moom la bëgg a def Aminata Touré ma ngi jéebaane Macky Sall ca bitim réewa internationalisé troisième mandat bi la Aminata Touré def ndax gisante na ak ki xam ne mooy secrétaire général des Nations Unies yéen kaay gii de las nee na université Aliou Diop ba sa Bambey dañoo fekk benn étudiante ci chambre mu ñàkk bakkanam yéen kaay gii de la Réveil Quotidien nee na coowul ñaari gendarme yi nga xam ne jamono ji moom la ñuy waxtaane ci réew mi gouvernement bu Sénégal ba léegi kenn déggu leen see waaye nag li nga xam ne moo garaaw ci yéen a kaay gi di source nee na jege ñaale gendarme bi di Fulbert Sambou ñoom nag tey jii dinañu amal ab réunion lu jëm ci lànk gi ñu lànk autopsie loolee moo tax tey ñu bëgg amal ab réunion yéen a kaay gi di sunu làmb nee na ci làmb ji liñ ci gis léegi mooy grand contre petit maanaam VIP yi ñoo ngi jël xale yi ndax Modou Lo jël na Ama Baldé Balla Gaye numéro 2 jël Boy Niang ñu ne déetewaay Gris Bordeaux jël Ama Baldé Ama Baldé ci journal bi nee na dafa ameel bor ñi nga xam ne ñooy waa Pikine te nag bi nga xam ne moo war a dox digganteem ak Gris Bordeaux dana sa wane lu leer